man mi nekkoon ci biir oto bi lañ ma sotti ma noyyi ko ak fi ma yóbbu bët gisatul mënatoo noyyi biir di daw ci saasa man xamoon naa dañ ma doon bëgg man xamoon naa ko léegi nag yónnee nañu ba am analyse analyse yi dikk na te fañ ko yóbbu du laboratoire bu ndaw analyse yi nee na produit bi nga xam ne moom la ñu gis foofu produit la boo xam ne kuñ ko sotti mën nga dee ci saasa loolu jeexal na wax ji leneen li ñuy wax yépp waaw fu mu jëlee produit bi est-ce que dañoo def scellé normalement kan moo yóbbu yére bi nangam amul solo ndax yére ba fa ma nekk ci laboratoire ma nga fa ba léegi saa suñu commencé une procédure judiciaire ku bëgg a dem foofu soo bëggee def expert contre expertise wala loo bëgg di nga fekk yére bi ndax yére bi fii yépp la sotteeku woon ak ci mbagg bi donc affaire bi des na fa mu nga ko bëri sans compter li nekkoon ci li daal di tisoon ci maître Clédor Ciré Ly donc ñun am nañu suñu échantillon tey moo fàttaliku li ma waxaat ñi ma bëggoon rey jàpp nañ suñu benn xale bu ñuy wax yargas yi nga xam ne bëgg na ma bëgg yem ku ma gis may dem aéroport moom ngay gis mu ne sama gannaaw ku ma gis may daw léeg moom ngay gis sax ci kaw mu yor drapeau bi Abdou Karim Diop dem jàpp kooku naan moom moo doon essayé rey waa moom moom moo gën a yomb ci rey ma ki mu jàpp kon bi mbir mi di am heureusement filmé nañu vidéo yaa ngi fi ñu téye biir oto bi man maa fa newoon Guy Marius Sagna euh, Zak bi doon dawal ak ndatu ndatu mbooj mi newoon ci gannaaw maître Clédor Ciré Ly benn instant la ñëw di ubbi pour xëcc mu tombeek soo génnee ñooñu ñi waroon oto bi yëpp alkaati yi boobu dàq nañ ñëpp ba ñu sori vidéo yaa ngi fi te produit bi tam nee nañu produit bi lu alkaati yi di utiliser lu ci ëpp dañ koy utiliser pour xeex ak nit kon kay loolu leer na produit boobu soo demoon ci marché yi doo ko fi am soo ko commandé woon dañ lay jël si ñoom rek ko mun a yor kon ma wax nii maa ngi confirmé nii dañ ma doon essayer faagaagal te liñ ci war a def ñu ngi koy def ndax avocat yi tey pare nañu document bi ñu war a commencé liggéey wala bu ñu war a déposer fi ñuy déposer te lii yëpp nag dafa am lu mu jur lu bari wax naa ko fii ci nasaraan bi loolu amee ba léegi man duma ku ma xam-xam ni man duma jooytu man duma daw di seeti ay kilifa naan leen wax leen ci walla jàpp leen ci man damaa gëm yàlla lu am ma dégg ko noonu la ma yàlla bindee kon su ma demee ba wax xam leen ni lu am la bi mbir mi amee ba léegi am na lu mu yàq ci sama sante man xam naa ko ñu ngi forcé rek di dox te dinañ continuer dox nag ba garab yu yegg fi ñu war a yegg parce que suñu engagement la ci kàttanu yàlla à part analyse yi am na ay erreurs yu ñu def yoo xam ne la ca feeñ ci euh, wàllu cerveau médecin bi dafa bind ne ma il faut nga génn dem foo xam ne seen xarale ci wàllu paj egg na foo xam ne dinañ mën a gën a xóotal analyse yi parce que xam ñu ndax lu dangereux wala lu dangereux waaye waruloon nekk fi mu nekk loolu moom du wóor may wax sénégalais yi nag ni ñun dañoo jël engagement parce que dañoo bëgg réew mi dañoo jàpp ni li ñuy dugal àjjana ëllëg coono gi ñu doon daj ngir suñu réew la ñun loolu la ñu gëm ñoo ngi góorgóorlu ci lépp lu yàlla santaane waaye jàpp nañ peut-être yàlla li ñuy gën a rusee mooy la nga doon daj ngir sa askan baax moo tax dara mënuñoo delloo gannaaw ñoom